post ci page Facebook am Ousmane Sonko di wax nii xamul lan moo sabab opération de désencombrement yi nga xam nii ñu ngi koy amal ci Ndakaaru ay fan a ngi nii nemmeeku nañ ay déguerpissement ak désencombrement fépp ci réew mi te ñi ko waral di ñi nga xamante ni ñoom ñooy collectivité territoriales yi man mi nag en tant que premier ministre dina dem Colobane tey jile ci dimanche bi ngir rek daal di dem jàllale li nga xamante ne ni moom mooy message wu président de la république. waaye mu mel ni premier ministre bi de fàtte na wala sax xamul bataaxal bi nga xam ni daal na tukkee ci ministre de l' intérieur am juróom-ñaari fan ci weeru mai atum 2024 bii ñu weesu moom Jean Baptiste Tine doon sàkku ci gouverneur yi ñu jox gëdd mbir moomee mu jàppoon ni dafay indi accident ak yu ni ci tali yi loolee taxoon mu jox ndigal président de conseil départementaux yi naka noonu maire yi ñu amal ay activités sensibilisation jëm ci loolee waaye tama daal di sumb ay opération de désencombrement naka noonu daal di koy topp waaye opération yooyu juróon coow commerçant yi ak marchand ambulant yi doon ko nakarlu mu mel ni looloo tax nguur gi deltu ci ginnaaw